lancement mouvement ànd servir Touba jeunesse bi mag ñi ñëpp teewoon nañu ci salle de réunion bu restaurant Eldassi. parce que lii am na solo parce que 1960 ba nëgg ni comme li ngeen di wax politique moo yore Mbàkke ak Touba. jëmut fenn. mbëbët yi ak taxawaay bi bokk na si li tax ñu taxawal kuréel gii. ndax dañoo seetlu ne département bu Mbàkke bokk na ci département yi gën a deltu ginnaaw ci 45 départements yi nga xam ne moo am ci Sénégal. ginnaaw loolu jàpp nañu ni bu nu amee bile taxawaay dinañ am solution. ainsi notre priorité demeure principalement dans le fait de conscientiser les citoyens citoyens sur leurs devoirs d'informer les populations sur leurs droits de dénoncer les manquements dans la gouvernance locale et d'exiger la transparence dans la gestion des affaires de notre département. waaye kenn dootul nangu ñuy fal ci ay tappale wala ñu ñuy importer nit ñëw nañu département baa ngi noonu demal ta lañ ko indil ñu. waaye nag politique sax na si loolu. jàpp na ni fi ñuy daagaane baatu askan wi kenn du leen fa jiitu. biñ ñëwee ci élection yi war nañ leen ne dëkk bi dañoo am Serigne Touba te Serigne Touba soo ko amee dootoo soxlaate dara ci sa àdduna. moo tax moo tax luñ fi indi élection yi passé li fi dugg ay milliards la. ñun ngi nekkoon ci terrain bi xam nañ ko waa Bennoo Bokk Yaakaar dugal ko fi jàpp na leen jënd suñuy vote ñu lekk xaalis boobu ba pare sanctionné ko mais damay ñaan lillahi wa rasuli ngeen gis dëkk bi ni mel ak jeunesse bi su doon Moustapha Mbacké junior ndax 2013 ba léegi maa ngi jàmmaarloog APR un an laa ànd ak moom xam ne ñii ma gis ay tappalekat lañ ay warkat lañ ay naafeq lañ ma bàyyi leen fa dem ànd ak askan wi la ba léegi maa ngi xeex ak ñoom. bëgg tamit gox bi am représentativité ñu gën ko bàyyi xel ci Sénégal ak doy waayam Touba ak li ko wër tax na nag gone yi jóg engagement bi feeñ na seen i acte ak seen i kàddu. beneen bi ci des commune bii ñu nekk muy commune Touba dañoo wax ne mooy deuxième ville du Sénégal ci économique ak population fii may wax yow bu ñu doon def conseil des ministre kenn ku dëkk Touba dafa toog loolu première humiliation damay dégg léeg-léeg ñuy wax ne autoroute Ila Touba bii Macky Sall deful autoroute Ila Touba pour Serigne Touba déedéet mais problème mu économie la Macky Sall defu ko ñi ko fi def dañu ñëw jël seeni i teg leen ñu teg seen i caméra ñu xool ban autoroute moo gën a rentable ci Sénégal dañ ko natt fépp Ziguinchor Tamba Bakel fépp teg nañ fa seen machines yi dañu dem ba xam ne Touba moo ci gën a rentable ñu ñëw def ko ci kon bilan Macky Sall nañ ci génne loolu. te ay gone di béy nag baabu di dunde loolu war nañ ko moytandiku war nañ cee jóge.